man daanu bi taaxaati kon dafa toll ci diggante boo xam ne ay julli lay def maanaam ñaanal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak ay ñooñam ak ay saxaabaam tëdd yi leen tagg waaye di ci ñaanale moom ci jëmmam sëriñ bi daa wax ci bayit woowu ne yàlla mi nga xam ne moom mooy wërsëgalal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam yàlla na ko dolli jàmm ak xéewal te defal ko ay ñooñam nag ay saaxabaam ya nga xam ne dañoo nekkoon rek ci ak topp yàlla salla alayhi maa taslimi mukrimuhu azka salaatin biha naxwil karamaati yàlla mi nga xam ne moo ko teral defal ko tedd nga jumat sëkk yàlla na ko dolli jàmm ak gën jaa selli xéewal yoo xam ne nun dinañu ci làqee ay karaama salla alayhi bi taslimin musawwiduhu bil ali wa sahbi man naalul inaayaati yàlla mi nga xam ne moo ko jiital def ko muy ab sang yàlla na dolli ci moom jàmm ak xéewal te defal ko ay ñooñam ak ay saxaabaam ñoom ña nga xam ne dañoo am ay jagle yu rëy rëy fa seen borom salla alayhi bi taslimin musharrifuhu azka salaatin biha naxwil kushufaati yàlla mi nga xam ne moo ko teral def ko mu féete kaw ñépp ci tedd nga yàlla na dolli ci jëmm jooju di yonante bi jàmm ak gën jaa selli xéewal yoo xam ne noonu dinañu ci làqe kastu dinañ ci làq ak wuññiku maanaam xam secret yi salla wa sallama man fi ljahri qaddamahu alayhi bil aali taadaad al yàlla mi nga xam ne moo ko jiital jiital gu fes ba ñépp xam ne teg na ko ca kanam yàlla dolli ci moom jàmm ak xéewal moo ko ay ñoñam jàmm ak xéewal ju bari lool ba toll ne limu mbindeef yi salla alayhi maa taslimi rafiauhu azka yàlla mi nga xam ne moo ko yëkkati ba ca kaw ba ñëpp xam ne moo féete kaw ñépp yàlla na dolli ci moom jàmm ak gën jaa selli xéewal yoo xam ne nun danañ ci làqe ay yëkkatiku ci sunu borom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi